salaamaaleykum sama mbokk internet yu suivre dag Médina waa tey mooy suñu première émission mode et tendance mode et tendance tey nag Wizi lañ seet si Wizi création Wizi création kenn du ko nettali ci mim réew Wizi création nationale internationale styliste la mooy dagg di ñaw comme lu mu ñawul baaxul sama gars ñu xuus ñu xool Wizi waaw Wizi ngi nii Wizi nuyu naa la. waaw mi laa maa lay fay bu baax maa lay jaajëfal bu baax a baax. mais Wizi sama première question mooy Wizi kañ nga commencé ñaw Wizi. waaw su ma bu baax depuis 2005 ah 2005 2006 affaire yooyu quoi waaw boobu maa ngi nekk xale ñu ma nekkul woon sax tailleur laa doon def dañ ma doon yóbbu si atelier bi may dem genre ñu may yónni di may yónni quoi parce que mm. sama benn grand moo fa nekkoon mm. ñu may yónni may dem di ñëw affaire yoonam mujj gi ma adopté wu si atelier bi xam mm. ñu may yónni ay mercerie genre affaire yooyu xam nga après si laa dem ba toog si machine yi di ñëw affaire yooyu noonu après si laa mujjee c'était 2005 2006 ah. oui waaw. ñoo ngi si 37 angle 26 fan la ñu ngi nekk nii fii mooy sa place bu bees bi. Mhm. waaw sa place bi kañ nga ko ubbi. fin 2019 waaw. 2019 waaw. ok ok kon yaa ngi fi am am nga fi instant nii un macha allah. Mhm. Mhm. dañuy defaal yooyu yëpp est-ce que yow sa projet ak ak sa vision est mooy foofu noonu. waaw loolu yëpp dina ñëw loolu noonu yëpp suñu kanam la nekk quoi. mais actuellement nii muy make-up muy affaire yu jigéen tout ça lu mu mënti demee daal xam suñu xel mu ngi ci yaakaar naa li si kanam euh, rawli bët lépp dina ñëw quoi. bi shooting bi gis naa ay yére yu bëri. tendance wu lan ngay def. dèjà yaa ngi ne sol yére wisi ah, création. wisi création waaw sol nañ. waaw yaakaar naa tendance bi 18 safar la tendance bi wane na boppam ba pare quoi. mooy koo xam tamit day ñëw tamit ñëw ñëw góor day ñëw ñëw góor day ñëw ñëwu jigéen mm-hmm. ku ko bëgg a seet si nag day ñëw 37 angle 26. fii la Wizi nekk. waaw comme ñu ngi si shooting bi ba léegi léegi ñu bàyyi Wizi création mu commenté collection bu mu def si 18 safar bi si mode ak tendance. bi mën naa wax ni la grand boobu bon ah. kon ci màggal lañ nekk te sëñ bi la ñuy wuyu il faut ñu def jàmput moo tax ñu def jàmput euh, def euh, musóor waaye c'est ça ah. ba tey yéen a ngi amaat mais tamit yéen a ngi am quatre couleurs yéen a ngi am couleur quatre couleurs parce que ñu ngi wane ni ba tey ni Euh, jaxas la waa ñu ngi wane ba tey ni si màggal 18 safar lañu jëm quoi loolu moo tax tamit ñu génnaat fii nii tamit aussi si jàmput. yaa ngi ci faal <laughs> yaa ngi ci faal ndigal sama xarit bi nga xamante ne dafa jong ma <laughs> mama affaire bi rafet na trop trop trop trop trop ñu ñëwaat tamit ci njaxas euh, defaat yu fu Baay Faal def euh, def kawas def def def def mbaxane tout ça <laughs> xam nga waaw ba tey daal yaa ngi ci 18 safar daal waaw ba tey yaa ngi ci kii ne waat dak Medina la parce que <laughs> mu ngi nii sawaay sol kenn dootu ko présenté ti ba tey mu taxawaatee tamit si njaxas ba tey 18 safar waay waaw <laughs> ñu yaa ngi ñëw ci tay baas trois couleurs ba tey tamit yaa ngi amaat tay baas bu weex ah am trois couleurs euh, bleu mauve jaune waaw ak euh, euh, ak fulaar bi jaune aussi xam nga ba tey tamit yaa ngi ci 18 safar bi comme te jigéen ñi dañuy defante ñu fële fii rek <laughs> brodé waaw grand boobu borode ma boole kook tamit juppu njaxas waaw parce que Touba day tàng te lii oyof na xam la tendance la ba tey yaa ngi ci kawam waaw <laughs> fële ci rose waaw guddi màggal moom ku laal lii yaakaar naa ni sa màggal day complet quoi vraiment waaw moo tax ñu ñëwaat ci euh, euh, mbasin jasner ba pare ñëwaat tamit si garniture tout ça pour nga xamante ni day gën a tëll tamit ci guddi bi quoi moo waral loolu waaye waa kon tey présenté nañ euh, modèle yëpp ba pare xam wane nañ lépp ba pare léegi dañuy dolli sant ba pare dolli gërëm waaw gërëm sama waa ji nii nga xamante ni moo géré mode tendance show xam nga ci Dak Médina gërëm seen photographe bi bokk Moussa xam nga ak sa yow mi yor caméra bi ak sama nijaay ju bu baax muy Papa Gueye le blanc xam nga maa ngi koy gërëm tamit bu baax a baax a ak jabaram bu baax maa ngi leen di nuyu bu baax parce que foofu laa nekkoon te wanuñu ma dara lu ñaaw ba tay ji ni mu ngi rafet ba tay xam ma ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ñoom rek lay tuddu seen tour gërëm leen le reste sama client yëpp tamit ma ngi leen di gërëm sama man ken bi bi mama <laughs> ak journaliste yi gannaaw sama sénépeuse bi <laughs> ma leen di gërëm yeen ñëpp waa midna <laughs> waa dag midna ak waa midina ñëpp tout ak Mam basin bi nga xamante ni yor sama euh, appareil bi di ma vidéo aussi. ku la bëgg a jot fan la lay fekk ak sa numéro téléphone ñaata la. kenn ko laaj numéro bi ñëpp xam nañ ko 435 25 27. Médina 37 angle 26 loolu moom mën naa wax ne ñëpp xam nañ ko waaw maa ngi leen. waaw kon sama mbokk internet yi tey lii lañ leen indiloon si mode et tendance mode et tendance tey lii leen indi woon indi leen si benn styliste bu mag boo xam ne kenn du ko présenté muy Wiizi création mu dalal ñu nag waaw dalal nañu trop waaw bërëb bàyyi nii. waaw bërëb baa ngi nii ku bëgg a seet si Wiizi création da ngay ñëw ba 37 angle 26 fii si Médina. Wizi création nag li ma lay wax rek national la international la waali na ko ñëpp way nañ ko. numéro service commercial baa ngi suuf ku am looy fësal li ngay jaay wala li ngay wane wala ñaw bi ngay wane wala loo bëgg a def rek ñun ñoo ngi fi taxaw leen ak waa Dak Médina kontaan si yéen ba beneen yoon incha allah sama gars yi si mode ak tendance ak waa Dak Médina